هق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا ردوان من في غابوا بالحلاوات jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet Rafa TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi saaxibul fadila wal wasila Serigne Mountakha basirou Mbacké di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram waaye noonu lañ koy ñaanalee mboolem njabootu Serigne Touba gi adi njëkkee kàddu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey ñu ñëw fii ci baqia ñëw fi tey ngir soppe boo xamante ne taalib Serigne Touba la woon bu koo xamante ne bëri xamoon ko ci dëkk bi xamoon ko ci réew mu nekkoon jëmm joo xamante ne naam at am ci liggéey bi bariwul ndax xëy na booba ak léegi bu ñu koy takk ci ñetti at lay toll ci métier mi mu nekkoon nga xamante ne ci la ko ñëpp xamee yàlla dogal mu nekkoon taalib Serigne Touba boo xamante ne ak taalibim fu mu toll daf ko daan wane waaye tamit ay kàddoom ak taalib daf ci daan feeñ ba yëpp bëggoon ko kilifa yu bëri bàyyi woon ko lool ndax liggéeyam am solo ba na tey jile bi yàlla dogalee ab dogalam moom démb muy Moustapha Mbaye ñu gën ko xam ci Mbaye Sapar Sapar coloré gum am ak Rafa TV ndax gis ngeen li nga xamante ne moom moo di seede si nga xamante ne doon na ko seede ci Rafa te ñu ko doon estati bi mu bàyyi ko euh, ci àdduna ak léegi ngeen gis seede si ñu amoon ci moom tax ba tey jile ñu jóg tey ngir fas yéene ànd ak ay mbokkam naqar wi waaye ànd ak mbokk taalibé li nga xamante ne moom moo di naqar li nga xamante ne moom moo di Baqiya teewee li nga xamante ne moom moo di denc bi ba lépp loo xamante ne lu fi am la rek ndax xam ngeen ne kilifa yi bari gis nañ leen fi gis nañ fi ku ci mel ne Serigne Djili Niang kenn Serigne Touba romb nañu léegi ak ku ci mel ne Serigne Mountakha Gueye mi nga xamante ne jàngkatu xasida la ñu gën ko xam Serigne Mountakha Gueye ak yeneen i kilifa ñu ngi fi incha allah waxtaan ak moom des jël tamit ay kàddu yu seede moom mi nga xamante ne moom moo di mbay sapar sapar nga xamante ne ah, liggéey bi mu doon lépp bégal doomu aadama yi la waaye lépp mu mu tegoon ko ci al insaniya muy nite waaye lépp mu tegoon ko ci nag bëgg ah, taalibé Serigne Touba yi kon ñu ànd ak yéen ci kanam tuuti lay doon ñu am ak yeneen i réaction yu ñu jël muy ay seede ci nit ñi بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات mbokk yi euh, téléspectateurs yi bàyyi xel seen site internet Rafa TV comme ni ma leen ko waxee woon sànq ñi ngi ci biir Bakhia euh, ngir teew fii ngir denc mbay mi ngi a xam ci mbay sapar sapar mu nekkoon jëm joo xamante ne kenn dootu ko présenté ti maa ngi taxaw ak koo xamante ne nag responsable politique la euh, nekk jëm joo xamante ne xam nañ ne teewaayam fii du hasard kon sëñ xaas ma jox la kàddu yi nga nuyoo ak téléspectateurs yu Rafa TV waaw ku baax ñoo ngi leen di ziare di leen ndokkeel baax a baax di wax ne mbay mi ñu ñaar ñoo bokk benn baay muy sama rak di sama xarit di nit koo xam ne ku bëgg sëñ Tuubaa la ku bëgg sëñ Fàllu la it bokk la parce que ba suñu ëttu maam bi nga xam ne mooy ëttu maam Ablaye Mbaye sëñ Fàllu heure bu ci mbay duggee luy joxe ak bokk luy defar ak bokk lay wax man mii daf maa def mag def ma lépp yàlla dogal na képp koo xam ne nga bokk ci famille bi sax bu déggee ñaari ñoom jafe-jafe sax danaan ma maag yow danañ fa dem waxtaan ak ñoom pour ñun mën a déggoo di ko ñaanal daal suñu borom yàlla bu ko cat jiitu te ñii fi ñëw ñëpp kenn ku ci ne mbay moo la fi indi ñun indi wuñ fi kenn ku fi ñëw rek jëmmi mbay la fi indi kon daal lim gën a soxla mooy ñaan yàlla na ko yàlla gën a xaare àjjana te lim fi bàyyi yàlla na caal teg loxoom. waaw comme ni nga ko waxee rek mbay moom vraiment dafa nekk koo xamante ni fi mu ñu féetewoon ñun suñu nday sax ak suñu baay féetewuñu fa ndax bokk ak say rak nekk Touba te guddeeg bëccëg mbay dañu woo lu rafet rek lañu wax wër na Serigne Touba man démb la ma woo ñetti appel jotuma mu bàyyi ma focal barki Serigne Touba fekk yoon boobu du ma ko wuyoon xañ sax lii laay dégg mais doon na nit koo xamante ni vraiment li ma wax suñ groupe famille bi rek nee naa leen mbay fi ma taxaw man sama papa taxawu fa sama mag yi ma bokkoon baay taxawu ma ndax nit la koo xamante dafa sore woon ci ñun barki Serigne Touba waaye di ko ñaan rek cat bañ ko jiit ci bàmmeel ndax dëgg yàlla nit la koo xam daal sama cant gi rek gis bi ma ko tuddee nga xamante dasee ñëw def ci lu am solo nga xam du toog deux fan ñaari fan yoo xam woowu ma ne ma cuun defal li defal lii te li ma gën a neex mooy mbay image image Touba da doon sàmm ñi ñi xam ay artistes lañ nekk fii dañ daan woo duñ dugalee dara mu woo ne sa waay di leen xam ne yéen Touba ngeen dëkk bokku leen a ñi dëkk Dakar di leen xool seen i image lépp loo leen dugal rek da ngeen xam ne bis dana ñëw da ngeen te loolu la ñu wanewaat te tey moom gis na ay vidéo mu dem ci laa fanaan mais koy ñaanal baax baax baax suñ borom aar ko aajanno daal jërëjëf mbokk yi ki mooy cuun boutique moom itam mbokk ci ah, artistes yi nga xamante ne dañuy yëngu ci dëkk bu sell bi di Touba waaye ñoom itam ñu yor drapeau Touba fu dem rek di wane ak ah, kenn ci ñoom nag ko fi tey jile muy mbay sapar sapar ñu gënoon ko xam ci mbay sapar sapar waaye jëmaloon kaman xamante ne soo ko xamee rek boo jaxasoo ak mom xam ne taalibe Serigne Touba la lu am Serigne Touba ko gënal fu ma sa wax ci àdduna boo gisee eh, loo ma sa wax sax ci yoon wi da ngay gis mu jël ah, kàddoom tontuwaat ngir lan ngir taxaw drapeau boo xamante ne daf koy wane toujours muy wax taxaw ngir Serigne Touba yawman min al mawla saniyati ah, ko gis eh, barab bi ni mu feese xam ni baax rek am solo waaye mu doonoon nit ku yàlla baaxal koo xam ni lim daan dox mooy reetaanloo doomu aadama yi di leen bégloo te eh, wax dëgg yàlla loolu moom ku koy def eh, amuñu safay xanaa di ko ñaanal fi mu jógee fa mu jëm daxal ko ko fuuf yàlla xaare ko àjjana Serigne fallu teeru ko ndax ku baaxoon la ku yàlla baaxal sama jàng yi ma mujj a def rek di sargal soxna tax a ñëw na ci wax dëgg yàlla foo ma saana tëjee ak moom mu reetaan kaf wax dëgg yàlla bi ma ko mujjee gis bi sama jàng yi jàllee kër Afa Jaw la mu ñëw ci xewoon yi ñu ñëwee rek daanaka lu gàtt gàtt reetaan loo na kon yàlla ko yàlla xaare àjjana koo moon yitte la amoon nag nit ñi Euh, yaatu woon ba pare ouvert wax dëgg yàlla xeebul kenn ku am bis mu demal la kon yàlla na ko yàlla xaare àjjana ci barke Cheikhul Khadim wax dëgg yàlla ku baax daal la ku baax la dëgg yàlla. jërëjëf sëñ Bassirou bari bagage lay bàkkoo mooy euh, Bass Fall kenn du ko présenté ci euh, dëkk bu sel bi du Touba sëñ Mourtada Diouf yooyu tam xam naa ne doom la ci sëriñ Abdou Lahad Diouf jànkatu xasida waaye tamit day yëngu ci xasida yi moom itam ñëpp xam ko ci dëkk bu sel bi lan moo nekkoon relation bi nga xamante ne amoon nga ko ak kii di jëmb jëf bàyyi ko. waaw comme ni nga Bassirou Fall waxee rek nit ku baax la woon li ñu mën a seede ci moom mooy bëgg sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi toll na ci moom foo xam ne fu mu fekk jàngkat yu ndaw yi nii rek day warloo ñoom lenn àddee xasida yi fu leen fekk ba bi mu fi bis bis bi mu fi jugee bis bi ko jiir ci guddi gi gisante nañ man ak moom ba ñu waxtaan ci xasida yi muy jàngantu di di di wax ak nit ñi di kaf ñoom di ree far bi ñu xëyee yàlla jël ko liñ mën a seede ci moom daal mooy ku bëggoon sëriñ bi bëggoon sëriñ Tuubaa la bëggoon ñooñ bi jàngal sëriñ bi foo ko fekk suñu waxtaan ci suñ Tuubaa mu tàggale ko ak sagoom alalam du ko boole kenn ku tabele woon it ñu mënuñ leen lenn du di ko ñaanal rek sëriñ bi teere ko ci àjjana yi gën a kawe irsaadi qablahuma min jalibati qururin ma shaqawaati ci taxaw ak gëm joo xamante ne ñu ngi wéy ak sëriñ Keba Thiam mu nekk directeur Daaru Rahman Bass xam naa dañ ko jox kàddu rek mu def seede jëme ci li nga xamante ne mooy jëm sell ci waaw di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di suñu borom yërëm ko te jéggal ko xaari ci a kawe barki Cheikhul Khadim ñu naan ko Moustapha Mbaye di eh, ab jullit di ab murit di ab taalibe xàqan ku bëgg Cheikhul Khadim ku am ngërëmal Cheikhul Khadim ak waa këram tamit nag dañ koy ñaanal yërmande suñu borom wàcc ci kawam man de sama sama sama wëllëre loon sama lépp la wax dëgg yàlla naa bu amee naqar mooy dem gi rek waaye nag ñu delluwaat ci suñu borom ñaan yërmande suñu borom yàlla xaari ko àjjana ñi nga xam ne ñooy njaboot bi suñu borom bàyyi ñu xol mooy waaye ku baax la woon ku goree woon ku bëgg Serigne Touba la woon ku rafet ab xol la woon daawul fekkee dara lu ñaaw daawul fekkee dara lu ñaaw dara lu ñaaw yàlla bu ko cat jur ci bàmmeelam barke Cheikh Khadim am nañ ci moom yaakaar tamit nag macha allah jërëjëf Moustapha Mbaye tam wàccu liggéey démb Euh, ñu ngi ñaan yàlla yërëm ko xaare ko àjjante yeexam yàlla dogal nag bi soog bi am ñun fekkee nañ ko ci tàmbali bi gannaaw bi ñu jokkoo ak sapeur pompier ñu def ci taxawaay bi ñu ci war a def gendarmerie ndindi tam def ci taxawaay bi mu ci war def procureur it ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne def na ko ndax démb la ajuma waaye bi mu yëgee nii accident bi am na moom Moustapha Mbaye ak ñaar ñi nga xam ne xale yi ci faatu bi ñu jokkoog euh, ñi nga xam ne ñoo nekk tribunal toog nañ fa ba vingt une heure vingt une heure vingt deux ndax di xaar li nga xam ne mooy kayit yi ngir signé ko ngir ñu mën cee jot ci ajuma ji dem ndax xamoon nañ ni samedi beeg dimanche bi buñ ci àggee duñ ci mën a jot loolu tam ñu ngi ko ci sant bu baax di sant justice bi. di xam ne tamit seede yi ñu ciy def rek mooy ma xam ci moom yàgg na ndax depuis 2006 ànd nañ ci Safinatou Amaan di liggéey sëriñ bi. muy jàng karaté may ma nekk ci saal bi di jàng karaté bu ngoon jotee ñuy xëy di liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bu sell bi ci gaar beeg yu bare bari yoo xam ne doon nañu ko am waaye li ma xam ci moom daal mooy ku rafet xol la ku mën a jubale ay doomu aadama la ku bañ lu naqari doomu aadama ndax lu mu gis lu nar a ñaaw mu taaw ci lam ci war a def ci lu rafet. loolu xam naa ko ci moom seer itam ni ku bëggoon sëñ Fallu la waaw loolu moom xam naa ni ku bëggoon sëñ Fallu la ku bëggoon sëñ Tuubaa bëggoon doomu aadama yi la moo tax boo gisee dëj bi ni mel ni lu bari ñu war ko cee war a jàngat mooy nit dee dees ko yëg yëgoon nañu nag ku yëg doomu aadama yi la ku jëflante ak doomu aadama yi la waaye nag rafet nañ ci moom jot ndax ku ne xam na ni sëñ Tuubaa moom kenn du ko yaakaar sa yaakaar di tas te yaakaaroon na sëñ Tuubaa yaakaar sëñ Fallu yàlla yërëm ko jéggal ko xaar ko àññi te te képp koo xam ni doxoon nga ñëw fii ngir lu baax ak yéene sa tànki ñëw ak sa tànki dellu yàlla na ko yàlla def njéggalu ko àdduna ak àllaaxira mbokk yi ñi ngi taxaw ak joo xamante ne dootuñu ko présenté ti kilifa goo xamante ne euh, kenn euh, natt la wut bëggam lu baax tamit ñëpp safoo ko tey jii mu ñëw ci denc bi xanaa ma yëkkat euh, rek micro bi jox la nga seede kàddu yi nga xamante ne moom ngay seede jëmee ci ki nga xamante ne mooy Serigne Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki adduna mbokki jullit yi mbokki murid yi noo ngi nuyu ñëpp di leen wax inna lillahi wa ci xibaar bu tiis mbir mu doy waar muy si Moussa Mbaye Sam doon nit ku baax ku tedd ku yaatu wàccab liggéey nga xam ne sama xarit la woon àllarba la mujj fi man mook soxnaam ñu toog waxtaan soxnaam am lu mu ko wax mel ni loola dañ doon da doon tàggatoo mu jóge fi ne ma ajuma ca ngoon danañ gise kon dafa mel ni lii moom la suñu borom na man eh, muy lu nu bett waaye nag dañ koy muñe yàlla ndax ci mbettee rek la ñëwee noonu la ko suñu borom waxee mbetteel googu nag tey daal dal si tey ci foo xam ne euh, du doon lu métti ndax yàlla lu mu def dañ koy waaye lu lu diis ci jullit yi ak murid yi ak taalibe bi yëpp la euh, di ko jaale ñëpp nag ndax ni ma ko war a jaale ni ñu ko war a jaale ñëpp man jàpp naa ne Moussa sama Moussa kuy xool internet bi di xool ay ay vidéo ak yu bari da ngay dégg mu di ma tudd di wax lu bëree bëri euh, yàlla la ñuy seer bi ñu ko yëgee daara ji ci tuubaa ci Sam daara ja ca ngàcc daara yëpp dama leen woon ne leen jàngal leen alxuraan ndax loolu laa ko deseel mooy ñaanal ko ñaari rakka yooyu nga xam ne suñ Tuubaa dafa wax ne kun ko julli ñu jéggal ko ko maa ngi seere ci yàlla ak ab yonentam jullil nañ ko ko ngir loolu laa ko deseel di leen sant yéen waa presse yi ndax ànd naa ak yéen àndin wu rafet ak yéen jëflante bu rafet kon jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullah fiix lan mooy kàddu yi nga xamante ne moom nga yëkkati ci kàddu yi seede ci gàttal. waaw kàddu seede yi mooy di ko ñaanal ci yalla ak Serigne Touba fee mu jëm Serigne Touba téru ko ci suuf si wayef ci ko ndax mbay ku gis dencham bi rek denc bi rek sédé na bopam ku gis mbolo mi nga xamni ñi amul won auto sax dañ doon daw ngir ex lool nak day wané ni suñu borom xol lay fay ku ak mbay rek xam nga ko ci xol bu rafet xam nga ko ci labir bañu bari sax wax nañ ni sogom bi li waral dëgg-dëgg metti gi ak laa biir la ndax bañoon na dal ci ay kaw nit kon li ñuy seede ci moom daal mooy denc bi moom sedd na ba ñu ngi koy ñaanal nag ci yàlla ak Serigne Touba fee mu jëm gënal ko fii mu jóge te loolu am nañ ci yaakaar ndax lam doon doxi ndax ñi ëpp ci mbooloo mi wax nañ ni da julli ji aju loolu dog ko ci yoon bi te ku ne xam ne ni nit na mu faatoo ci loolu lañ koy atte ci loolu lay dekki kon ñu ngi ñaan yàlla daal suñu borom yërëm ko te yeexuñu ci barke Serigne Saliou boo xamante ne doomu aadama yëpp war nañ cee jànge ak mbaax jàng ci gëm sa bopp mbay xam boppam léeg-léeg sama dégg ku naan gëm sa bopp mais nit du gëm boppam day xam boppam mais mbay ku teel a xam boppam la ku teel a préparé la ku teel sotti la waaw yàlla nag bu ko cat jiitu fa mu jëm kilifa goo waxal mun la man fu ma ko mës a seetaanee reetaan na mais nag li ma ci jànge mooy ni ñu waxee ne ñaari xale faatu nañ ci dama ne mbay du faat euh, ñaari xale ci ci ni mu demee ci oto bi ba noppi di dundaat loolu na ci jaam ñi bàyyi xel maanaam mbay ñu ñu ñu ne ko pëkk pëkk mu jóg ñu ne ko oto bi nga yoroon faat na ay doomu aadama ci ku mënta kaata doomu aadama kooku mënu fee nekkaat di bigal nit kon lii rek moo ci mën a topp ma nga jëm foo xam ne nag ku dul Serigne Touba mënoo fa mënaloonu fa dara ku dul Serigne Touba yaakaaru ko yàlla na ko fa jiitu tey nag lay xam kan mooy Serigne sëriñ bi kenn du ko xam ci ay ay benn fee lu dul parce que fii dafa bari dafa bari dafa bari jalaw jalaw dangay tudd sëriñ bi sax am ku ne Mamor Faye am ku ne mbërum làmb am ku ne nangam waaye fee mu jëm. sëriñ bee toog mu yaag ma sàmba mu ne ko mbàkke mu a ko ñett yi maa ci man fop maa mën ci géej gi fop mu ne ko sikkuwul mbàkke mu ne ko ak jéeri ji toog ba yàgg ne ko ak yow mal xiyaam gën jëm te booba te ba booba te nun bu nu taxawee ne sëriñ bi mënal nañu foofa dara mooy dañ koy gëm ndax ku ko topp dem àjjana la ñu wax salla alayhi ma taslimi baisuhu aska salatin biha nukfal xururat